léegi daal chéri ko na koy ma fay li ko ma naa ma tëj bay sama mbalaate gi fukk bay ñaanu tëj yi ko fekkee woon woo waat leneen ko fekkee waat ñu dellu ama ni ngoro gi laa wax ngoro gi ngoro gi ñi ko fekkee woon woo waat leneen ko fekkee waat ak dina ñu ma eh sal mar ngena ngoro gi jokkal fekkee woon woo waat leneen eh, ko fekkee waat dama biir geer dama biir geer waaw na ñaari baat doo ko def Zalbal nee na ma waa Kër dama doon taxaw bi mu wax ak ñaari baat nga soog a def. ña ko fekkee woon woowaat leen man ko fekkee waat. Eh, dëgg la ñu bokk France ba tubaarkaal dara ñu am ngay doomu Gine tubaarkaal ñu bokk man benn maam te lu saa bi ñu defoon përgël mënu ci dara dañoo bokk benn maam nga dëkk tubaarkaal la ci teg moo moori taw mu moori ma dëkk naat kii tubaarkaal la yaa ngi may dégg alaa maa joxel ma ngay damay ñëw ci man ndax li lay jiwee nag tubaarkaal la maa ngi lay ko xool dara fa maa ñëw may la ma yegali rek ma la bi ñu léegi sama sama nijaay rek laay def sama pare ba toj. añu maa nijaay la xam ne moom maa toog mu war a nijaay waaye nag maa jox cër bi. ci ma la ma feccee parcelle bàkki boobu du maa ko yar du maa ko yar xam naa ko baax. est ce que kooku ba kuy ko joxoon naa ko ci. bu ñu nekkoon ci placement jaay kee jëlaat ko bu ñu def ko maa ko loo koy jëlalee. ak maa jëlalee man jéeri góor ni muy. man mi nga xam ne tubaarkàlla mbaa kat laa dëkk. man mi nga xam ne ak ëpp nañu ministre la ñuy woowee sama yaay. alaaji Ablaye Mbaye la ñuy woowee sama baay. xarab ay waay may ma foofu noonu aja tu lañu ci ñu woowee sama yaay ala jam lay may lañu woowee sama baay naqar la fi bàyyi bàyyi fi gàcc mbokk bi yaay Fatou Mbaye mbokk bi yaay Kuma Mbaye tubaarkàlla daje wóorul balaa ngaa xam ne ci képp ko daal jiiri ko ni maa la ko sàmba ku ni ma gisee gitaar itin ma moori taaw ma moori ma moori Ndéla Thiambane ba kontaan na daal di réer di téye terewul wala di nelaw ya ay seen. Foundiambaay. maman mii daf maa tubaarkaal mu jaay barki démb la ñu ma tuddee doom ci fii ci ginnaawu Kër Massar gii man tubaarkaal la jàpp rek laay jooy ak ak ak ak tubaarkaal la doon xale waaye jom dina muy ma ci ku ma toppale dara ñaari junni ci saal may géwél maman maman dooleen may dooleen may diggante dooleen may ak maman dooleen ko may diggante moom ak maman rek maman waaye xam nga ma bëgg a wax. waaw waaw li ma bëgg a wax tubaarkàlla sama rakk yi dañoo bokk plan ba dara ñaawul. waxal loolu sax may ajara dañoo bokk plan ba dara ñaawul. dama dama loo ci askan. naam toogate ba ñëpp nañu maare la. yaa ngi fi ñu ko teew tubaarkàlla ba mu méttee. damay la munal lu waay mën nga dee. may la sonn daw tay doo bëgg a dee doo bëgg a dara. may la sonn ñu tay nga bëgg a dem kuréel mu. dëgg la yàlla jënd ci sànni. yàlla jënd ci ñii tëjal na ci sax mais par cas nga xam ne bàyyam sax waaye bàyyi yu doyul yóbbu ma ci bàyyi bu dee bi dara ndox jot jaaba ñeenti ñu jot ñeenti ñu jot ci sax mbay juróom benn junni tubaab kàlla ci sax mbay bi nga xam ne mbokk bi yaay Fatou Mbaye ba dégg ko sama néegu ndey tubaab kàlla doom ngay tontu ndey tubaab kàlla juróom benn junni quarante mille ci sax mbay bi nga xam ne tubaab kàlla kii dong la personne dong lay jaay ak la gore sànqal la am soo maa ngi doon bokk mel ni maam te lu saa mën te foofu ba nga mënu si dara. maa bokk mel ni maam te dara ci benn la tubaarkaal la bokk ci teg ma moo di ma dëkk naa bii. fukk li bi ci saa man tubaarkaal laa xeeb ak ñëw jàppale la bu ma amoon avion dama la koy may ci la ko dawaral sa sëy bi yàlla doon benn sëy yàlla boo sëyaat ma wax yàlla boo sëyaat. yàlla na sa dernier sëy sama rakk bi yaa ngi sëy yàlla na sa dernier sëy Diba Saliou te boobu tey mu ngi xaar ana nga lay nga lay nga lay joxe nga lay rek ak asaka yéene aha ba mu jaaxlee daa gis maman mu dimbali ko dëgg la teg ko ci yoon dëgg la barki Seexu Xadim man duma wax ak kenn dara dëgg la du ma téye jeeg saagam du ma teel teg daal la lu ma ci nit. yéen lu nit def dama koy def macha allah su ma taxawee fii wax awa amaami yàq ci dara. déedéet du ci yàq Seexul Xadiim sama xarit nga. Nogay Kara moo ñëw ci mama Africaine. jëlaa leen mali ak ay yéeneem. cër yëpp ñaar ñi seen cër moo ma ci gën a ñëw. maa ngi lay Nogay Kara moo ma ci gën a ñor bu ñu ñëwoon te indiwoon ma dara sax kontaan na ndax dama leen a bëgg ba ma leen xool dañoo sincère ci may sëñ Serigne Sall li yëpp sax ma leen sama xarit nga ma laa fekkoon ca place ba e kuy abonné demal li jamono kuy le réseau ba ne waay bu baax xool awa am waxal waxal waxal waxal lu bu baax ñëpp di dégg. na koy gëraat nee na. waaw na koy gëraat nee na bi ko ñëpp déggee. may Omar Sarr yaa ko teg tubaarkalla macha allah ci place ba. muy jaay tubaarkalla par rapport ñaar téeméer. mu mu baax tubaarkalla foo jëm yóbbu ko. loo am may ko. soo gisee tubaarkalla muy dandangi. te ko sax may def ma dina jàpp. mu ne ma def ma dina jàpp ma tubaarkalla. mu ma wàññi téye xam naa ko. na koy gëraat. bu baax doolo. doolo pour bi. soo tax ko doo xaali xane ando kenn bëccëg mu ngi li ko nit yoo jëpp xale ka saña léegi rond-point bi léegi rond-point bi nee na barkaal la sax nga ko woo léegi rond-point bi dama ne mama mama léegi rond-point nee ci barke déglu ñu mama déglu ñu ah déglu ñu waa Adara yëpp loolu yëpp moom père bi nee na tey la ko waaye jëlal la sa jëlal sa nawale sa gaynde moo la jox ñeent junni jëlal ñu moom père bi nii laa bëgg ko jël waaw ko nak damay ndaw ta dégg ko yaa ni ma xam xam na lu ko xam na ndaw ta ñeent junni ñeent junni ñeent junni day la ko mo tay ñu jox la ñeent junni sa bi yaa ñëw Zane Mbaye yéen ñu la sama xel bi dem taxawal nii